jërë ngeen jëf Babacar ñu amati mbétte contentement bu baax a baax def di jàllale li nga xamante garab gi garabu kattan gi nga xamante ñu koy jaay muy garab gu am solo képp ku am impuissance sexuelle nag ñuy woo suñu numéro téléphone 77 745 32 31 képp ku ci am problème boobu boo ñu woowee bu ñu jokkante yow incha bi ñu ci jàppale taay damay jaay ay garabu kattan yi am solo ci réew mi taay réew mi problème kattan man <laughs> na loolu macha garab gi nag du ma la si ma ci fa xam nga la ci may waaw ndigal naa ko ci may maa ngi lay nuyu Babacar. Abou maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm di ko ñaanal Sénégal yëpp. Hmm. tey euh, li duggee léegi léegi rek mooy image bi nga xamante ni ñu ngi koy gis tey fan yëpp mu nekk ci les réseaux sociaux tey ñu gis entraînement yi nga xamante ne tey yaa ngi koy daj ci li nga xamante ne fan yëpp jamono ji di ba nga bëre ak Tapha Tine ba léegi teg yow sa tànk yaa ngi ci say entraînement mais ñu gis benn mbir mu si amaat mooy tey Lac de Guiers 2 ñoom Alioune Seye gi ñu yëpp gis na boobu guy gi waaw chaque jour waaw ju chaque jour ci diini lan la Balla Gaye loolu mu bëgg ci bu lan la. non dara xam nga jàmm rek lañ bëgg ak salaam xam nga jàmm lañ bëgg tey àdduna day toll foo xamante ne li fi wax gars yi di wax yëpp ñoo ko fi njëkkee mun a wax waaye wax. cat moo ñu topp quoi cat waaw mooy na moom moo ñu donc yàlla suturaal nañu ba ñëpp aussi yoo tax gi yàlla ñu nekk benn mosu ñoo tàggali ko nag mais gëj nañoo gisee gëj nañoo nekk ensemble ma jot na aussi tamit du jot yomb yàlla tax na tey gis nga yaa ngi gis Lac de Guiers yaa ngi gis Alioune Seye yaa ngi gis Youssou yaa ngi gis Ndigal yaa ngi gis ñoom Thiat Daouda Fall ñoom ñëpp ñu ngi ci diini donc ñii dañuy bokkul heure rek waaw di gërëm école de Balla Gaye yëpp di ñaanal jàmm fu ñu toll ah, di gërëm président Pape Mama Fall gërëm ndaw di gërëm aussi tamit euh, Lac de Guiers Alioune Seye de Guy gi Lirou Diane suñu mag donc euh, vraiment lii dafa neex on est famille parce que ñun ñëpp ñooy liggéey ñoo bokk nday ñoo bokk baay. ngeen mu nekk ci ay préparation combat yoo xamante ne tey jamono ji muy combat boo xamante ne moom ak Ada Fass muy combat bu méttee métti xale boo xam ne duggoon na géejawaay daan fi mbër ah waral tax tey ba mu àgg fi mu war fi mu àgg ci làmb mais gisee benn image Balla Gaye Lac de dañoo maroon gis image bii parce que gis nañ ne jamono ji lamb lu mu jaral jamono ji Balla Gaye lan la Balla Gaye fu muy demee ba commencé bàyyi làmb nga jëlaat làmb ko téewaat Balla lan la non c'est-à-dire que ñun tollooguñ fi ñu bàyyi làmb xam nga ñun 2005 lañ dugg ci làmb ah, boobu xam nga ñun bëri nañ ñu fi ñaan ay bàyyi mais ay magee deux ans moo fi am ay magee trois ans donc tollooguñ fi ñu bàyyi làmb xëy na peut-être yàlla dafa dogal tey ñu njëkk a siiw rek njëkk a fësle njëkk a affaire yooyu demee noonu mais suñu morom rek la ñuy bëri ah ñu nekk ci làmb buñ ci tollee aussi tam ñu ngi ñaan yàlla nag nekk ci làmb génn ci génn bu rafet mais actuellement alhamdulilah ñu ngi ci làmb lépp lu ñu war rek dañ koy def muy liggéey toog loolu parce que toll nañ ci làmb foo xam ne suñuy supporter dañuy sonn dañuy sonn trop werante bi day bëri ñu amee combat du ñoom jàmm te donc ñoom lu ñu bëgg rek mooy seen bër di entraîné nekk ci forme donc du ñu déglu ay wax yu bëri déglu ay ay experts yoo xam dañuy wax ñii tey ñu ngi wax wax ju garaaw ñu positif ñii ñu ngi wax wax yu négatif léegi ne doo xool li nga xamante ne lu positif la te normal mu jëriñ la loo ci war a def nga def ko waaw loolu la. Balla Gaye mi ñu gisaat jamono ji ci làmb dafa mel ni dafa am lu mu baat ci biir làmb ji donc mooy le l'empereur de l'arène loolu àdduna yëpp xam nañ loolu mais dafa mel ni am nga loo bëggaat ci làmb ji jamono ji jamono ji ñu toll Balla Gaye ma ñu gisoon mu ñuuloon kukk jamono ji lañ gisaat giñ nga leer rek ñuul entraînement bëgg koof si rek. waa xam nga dañuy bëgg rek di bëggal suñu supporter dañuy bëgg di bëggal suñu supporter parce que ñun toll nañ ci làmb boo xamante ne ak lu ñu def ci làmb suñu supporters yi vraiment dañoo war di bëgg waaw ñun ñooñu jëmee ba toog ba saytu ko xam ne ñun dëgg la nag victoire am na defet am na mais bu fekkee def nañ li ñu war rek ah li yàlla maye mu mu koy maye ba léegi xam nañ ne wax dëgg yàlla buñ ci nekkee góor yàbbu la de. waaw bu ñu ci nekkee daal mooy loolu daal bu ñu ci nekkee. boo ci nekkee góor yàbbu la. bu ñu ci nekkee daal alhamdulilah ah. <laughs> waaw. loolu waxi Ama Baldé waxoon de Mballa Gaye um, boo ci nekkee gars yi mais bu boo ci nekkee ci làmb nekk say entraînement nga góoroo góor yàbbu la ci biir làmb waaw mais tey ñu gis li tey am combat boo xam ne dafa am muy combat royal ci diggante Siteu ak am muy Modou Lo te que ñu bëree bëri que ni ci ay wax ay information yi dégg ne Balla Gaye jël na avance mois de juillet wala Balla jàpp nañu ko date mois de juillet day xaar te combat royal lay bëre lan la wax jooju. non ñun ñu ngi toog di xaar peut-être yàlla dafa dogal rek amaguñu combat euh, promoteur bi nga xamante ne mooy Albourakh Events donc bëgg na sama combat donc euh, lu ci am solo mooy ñu ngi suñu liggéey bu amee combat bëre buñ ñu sañoon sax dañuy am bëre ah bu ñu soxla nañu bëri ñaari combat ba saison bi gudd na ko ñaari avance dafa xew. waaw am loolu lañ bëgg incha allah waaw mais ku ñëw moom ñun xaaruñu fi kenn te li am solo mooy ñoom combat bari daan waaw incha allah. wala ci émission bi wootee pencum lambu nga wax fa ay kàddu yu am solo ci lambu ji parce que lamb dafa baaxoo benn affaire bu amee ci lambu. waxi supporter waxi journaliste wala waxi rumeur bokkul ci li nga xamante ne mooy ci yenn polémique làmb yi parce que tey buñ retourné ci làmb ne am na nit ñoo xam ne ñu ngi ci Balla Gaye tey dañuy jàppale tey Siteu pour mu daan Modou Lo wala et cetera et cetera wala dañ fekk ko jox avance su Siteu wala et cetera loolu est que am na ci lii wax débat yooyu. waaw ah non xam nga ñun toll nañ ci làmb foo xamante ne wax dëgg yàlla lu lu am solo rek moo ñu war muy wax ci wax lu rafet. te di ko jëfee aussi tamit. plus important mooy loolu di ko wax di ko jëfee mooy soxor amul njëriñ waaw maanaam xool asamaan jaru buuxante waaw ku nekk lii soxor sa ngay lekk mais en même temps tamit ma waasu kenn maa ngi toog nekk suma liggéey ku ma yàlla jox mu bëri waaw. yaa ngi toog sa ruq. maa ngi toog sama ruq di liggéey rek loolu rek moom importance. li ñu gis nii ngeen def ko ak euh, ki nga xamante mooy Lac de Guiers si ñu ngi xaar tamit ngeen di benn groupement indi xale yëpp ci diini fii ngeen jàppale leen ci ma jàppale leen ci liggéey xale yëpp incha allah dinañ leen woo ñu liggéey ñoom bu ñu seen mag yi di liggéey rek war nañ ñëw liggéey loolu problème te ñoom ñëpp dinañ ñëw incha allah liggéey xam ne aussi tamit liggéey rek moo la mën a may dara liggéey moo la mën a may dara sa métier moo la mën a may dara sa métier lépp li nga bëgg moo la ko mën a jox du mbindeef moo lay fekk fi nga toog mu jox la tey benn un million wala deux millions non sa liggéey sa doole moo la ko mën a may ba tax na daal maa ngi focus si xale yi wax leen ak di leen ñaax ñu bokk ndey bokk baay liggéey maa ngi ko doon benn yàlla dafa leen jàmm waaw. Euh, Sarak Sakess bientôt mën nañu xaar combat am boobu ba léegi làmbam. Ah, mais bien sûr war na mën am combat parce que tey Sakess toll na fu mu war a bëre mais combat yi comme saison yi combat yi bëri dafa taxaw ba ni man mi di wax yow ma combat kenn ak donc xam naa bu match bi tasee. te match bi léegi mu tas après combat na taxaw waaw <laughs> loolu la. waaw bëri na yow de Omar. waaw ah, bëri na yow kay. <laughs> <laughs>